ñoo ngi daw Dans votre scandale du jour de ce lundi 4 décembre sur la chaîne des grands événements VIP People TV ginnaaw bi nga xamante président de la République Macky Sall demoon na COP 28 Fofoche, Dubaï maanaam di Fofoche foofa Émirats des Arabes Unis ginnaaw loolu nag am na Bernanda, ndaw si boo xamante ni Awa Kitty Awa Kitty Awa Kiti. nag dafa bokkoon ci parti boobu di Ousmane Sonko mais ça fait très longtemps bi mu découvrir ay fenu Ousmane Sonko bi mu découvrir ay manipulations yi daf ci génn commencé de démasqué ba ñëpp ba di rejoindre camp bi nga camp présidentiel di Macky coalition Benno Bokk Yaakaar ñu gis ko muy def ay défense yu bare ginnaaw loolu nag kii di Awoush bi Macky Sall ñëwee Dubaï comme moom foofu la nekk Macky Sall gis na ko

réwmi Je man nak ben commentaire la la ci indi Macky Sall est le président de la république de tous les sénégalais ku ci nek am nga fi nga far xeyna nak d'accorduma saga d'accorduma ken kuy président de la république raison pour laquelle man je respecte Macky Sall en tant que président de la république ñu bari dañuy nane page perdre la bokk mais ils n'ont pas compris je suis là pour le président de la république Macky Sall dañ ko tànn à 58,7% pour le suffrage universel direct tey nag ku respecté wul sa si c'est birker, kër do respecter. kenen Macky Sall nak moy Sénégal parce que père de la nation ku fi mën a yeewoo nga mag ko mu mag la mooy père de la nation suñ ko sukkandikoo ci wàllu république kon kooku cër laa koy jox respect laa koy jox gungee ko ci lépp loo xamante ne mi ngi koy tabax ci biir Sénégal ndaxte su ma bëggee Sénégal naat nga fal nit ki pare di ko faxasal Sénégal bi nga bëgg doo ko am kon man loolu tax may défendre Macky Sall mais je crois que le Macky Sall c'est dans ses droits de recevoir n'importe quel Sénégalais partout fu mu mën nekk ci àdduna rax ci dolli nag njiit da am dënn bu yaatu da ngay am xolu jéggale ak jéllale ndax ñun ñi nekk ci suuf suba ngoon guddeeg yàlla ñi ngi tooñ yàlla suñu borom te ku ci nekk ñaan nga keroog yowmal xiyaam soo ñëwee nga tuub yàlla baal la jéggal say bàkkaar ba nga dem ajjana firdawsi kon tey suñu bëggee ne président de la république Macky képp koo xamante ne waxoon nga ko benn wax wala nanga mu fekk la feneen day fayantoog yow je crois que loolu du cëru njiit njiit da nga war a am dënd bu yaatu awis kiti def na ko lu tax ma defoon ko dafa réeroon nit ki nag su réeree ba nga xamante ni gindeeku na ñëw na yow mi mu tax mu gindeeku mën nga ko jéggal te yàlla tax président de la république Macky Sall ci loolu lay dox kon yaakaar naa ni ñoom ñii di critiquer ñoom ñoo nekk ci fayantoo tey président de la république Macky Sall su doon fayantoo dañ ko lan lañ koy njëkkoo njiit du fayantoo njiit dafa war a nangam sangam dafa rancunier dafa am haine tey président la république Macky Sall képp koo xamante ni mës nga ko saaga ci àdduna nga retourné waat sa veste jéggalu ko mën na la jéggal ba pare taxaw photo yow saa na di euh, wonewul dara lenn rek laay bëgg a xam kay dama gis benn vidéo laa bëgg ñu dem seetaani ju ko dellu si waat. J'espère que vous allez très bien merci monsieur le ministre vraiment jotna 5 millions de francs CFA egsi na si ak salam bu la neexoon ñu teg la ci sa poste nga né do faalé sa jeunesse do faalé jeunes yi yaa ngi jàppale yi nga xamantene dañuy xeex pour sen rew yaangi encourager ñi nga xamantene ne tamit dañuy xeex pour sen pour sen rew vraiment merci beaucoup. kon yakarna ni man côté photo beeg nangam sangam Macky Sall lu mu def dama ci ànd à 100 pour cent. Macky Sall est un président de la République de di comme ñun nu ñu nous ci suuf ñaan nañu kérok yowul mal ñi dem fekk yalla bakkar yi def ñu ko mu vidéo monsieur le ministre merci nous ci 5 millions de francs 5 millions pour lan monsieur le ministre 5 millions sa salaire la wala nous askan bi la koy laaj su sa salaire la aw pas compte ma rendre lu la neex nga def ci sa salaire su dee xaalisu askan bi la xaalisu ministère bi xaalisu budget état du Sénégal génnal nga leeral ñu lu tax nga jox kii cinq millions de francs CFA gënu fi nekk jeune beneen sénégalais on a tellement de jeune ñi ngi fii Sénégal soo mënee jël ci xaalisu askan bi jox benn awis kiti cinq millions jëlal cinq millions nga jox ko jeune u Sénégal yëpp wala nga expliquer ñu ci kellan ban cadre ban projet ak lan la tek ndaxte am na jeunes yu nek fi bir dakar dugal sen ay projet yo xamanteni 1 million la yi cinq cent mille yii trois ci ken financer wu leen donc lolu la bëgg monsieur le ministre leral yu ko ndaxte xaalisu askan bi la ñëpp ko bok du nu len neex ngeen koy defé donc li tay day indi ben frustration ci benen côté jeunesse yi ki toog Sénégal am projet dugal ko ay weeri weer tontuwu leen ko awiskiti bi nekk fa fële Dubaï ngeen dem ginnaaw foto ngeen yëkkati cinq millions jox ko ba mu am sañ-sañu audace di ko filmer di ko wane dafay indi frustration ci kaw jeunes yi kon yaakaar naa ni monsieur le ministre leeralal ñu cinq millions yi nga jox awiskiti xaalisu kan la su dee sa xaalis la sama yoon nekku ci bul expliqué kenn su dee xaalisu état bi la expliqué ñu lu tax nga jox ko ko ak li nga jox Awoush lu tax mënoo ko jox yeneen jeunes yi nga xamante ni ñi ngi Sénégal yor seen ay projet am na ñoo xamante ne tey 5 millions yooyu soo ko divisé woon jël 250 000 jël ay jeunes jox leen ko ñu commencé ay entreprise loolu mën na jur leneen kon donc monsieur le ministre 5 millions yi Awoush wax ñu ngi lay laaj nga ñëw indil ñu explication parce que du ma ci d' accord su dee xaalisu état bi la ak ban base ak ban filiation nga ko joxe lii nag tey mooy indi filia frustration ci jeunesse bi ba ñu contre ki nga xamante ni mooy Macky Sall ba ñu contre ki nga xamante ni mooy choix moom la teg ci Amadou Ba moo tax ma ne parfois da ngeen di def ay af yoo xamante ni yéenay gasal seen bopp kàmb li tax sénégalais di leen bañ lu tax sénégalais di am int yéen ndaxte nit koo xamante ni tey dafa am soxla ci yow di la woo téléphone doo ko jël bërki démb gis na xaw ma ban ministre la nag xaw ma ban mi bërki démb gis nañ fi daal ñu fi jóg di attaqué benn ministre bi ñu koy attaqué muy ay mbër di ko naan lii la ñu waxoon benn weer la ñu fay nangam sangam frustration juddu foofu donc 5 millions yi ne ko ministre bi jóg leeral ko askan bi en muy 5 nga xamante ne awuskiti yëkkati na ko remercier monsieur le ministre parce que dafay accompagner jeunesse bi d' accord yow mi am moyen ba dem Dubaï xam nañ Dubaï nu mu mel nga xool ñi nga xamante ne ñi ngi Sénégal amaguñu sax billet bu leen mën a yóbbu Dubaï mu jéem en tout cas